Et jusqu'à présent, mosuma Moussouma terrain, je veux récupérer maintenant mon argent, on me fait balader. Jusqu'à ce jour, non. Donc je pense que ce n'est pas la bonne direction pour man léegi dama amoon aussi beneen problème bu ñu ma wax pour affaire les impactés du TER euh, boo demee ci banlieue bi à Pikine Icotaf kër yi nekk foofu am na ñoo xam ne jusqu'à présent comme TER bi commencé na def nañ ko en service kenn waxul nit ñi finalement danañ leen delloo est-ce que mën ngeen jaay léegi seen kër ou pas moi qui vous parle nous on a une maison là-bas aussi le collectif n'est au courant de rien terre baa ngi daw est-ce que nit ñi mën nañ ñëw utiliser toujours seen kër ñi bëgg a jaay est-ce que mën nañ ko jaay parce que quand l'État met la main dessus on peut pas vendre su fekkee ne mën nga am élément de réponse boobu euh, je voulais aussi parler un peu de UCG Euh, comme on part tôt euh, très tard le soir man gis naa leen euh, ñuy liggéey di nettoyer VDN bi et tout donc on salue vraiment ce qu'ils font mais man seen sécurité mooy sama problème pour man li ñuy sol c'est pas tellement adapté il faut des chaussures de sécurité il faut des casques et tout et puis je pense que ni ñuy nettoyer VDN bi VDN bi une circulation assez rapide Euh, ils sont en danger ces gens-là la nuit est-ce que mën nañ leen wutal balayeuse au lieu qu'on achète des voitures gis naa ne dëkk bi boo génnee dafa mel ni état de siège il y a partout des gendarmes des voitures blindées et tout nañu jënd balayeuse jox ko ñooñu ñu ciy dugg di nettoyer autoroute bi toujours su ma waxee ñu ne ma fii du France mais c'est ce qui se fait en Europe xëy na looloo tax nit ñi di gën a gudd sa fan parce que les gens qui qui se droguent et tout disons le mot peuvent être déséquilibrés ne peuvent pas les voir te ñoom ñoo ñàkk seen bakkan fekk ñoom ñuy liggéey pour dundal seen njaboot donc euh, ma doon joxe boobu suggestion ngeen jëndal leen ay balayeuses ñu ciy dugg di nettoyer euh, dëkk bi tout le monde y trouve son compte ñu nekk en vie mën fi gën a yàgg di ñu dimbali voilà merci beaucoup